àllarba juróom benn fan si weeru avril mbokki internetu desprod media point com desprod tv ginnaaw bi ñu leen nuyoo ku si nekk sa tur ak sa sant du def lenn lu dul du nuyu kilifa diine yi di leen ñaanal gudd fan ak wér gu yaram waaye di ko sàkk si ñoom ñu ñaanal réew mi jàmm ak salaam waa ndax nee naa leen réew dafa war a mën a am jàmm ngir mu mën a innover waaye mu mën a jëm sa kanam ndax lépp rek seenu nous Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar du ñu fàtte mukki kilifa aada yi di nuyu nag le président de la république monsieur Macky Sall bi nga xamee ne moom la suñu borom tàbb jaarale ko si suñu loxo ñun sénégalais yi ba tey mu doon suñu njiitu réew ni ma ko daan waxee saa su ne sama biir wax mooy réew bu ñu bëggee mu am jàmm dañuy ñaan njiitu réew mi jàmm ndax ginnaaw bi nga xamee ne ñun ñëpp dañoo toog si gaal gi gaal googulee nag moom suñu borom moo ko ko jox teg ko si loxo mu koy dawalal bu wengee rek gaal gi wenn waaye bu jubee rek gaal gi jut kon dañ koy ñaanal yàlla suñu borom defa ko jàmm ak salaam duñu fàtte mukk ñi nga xamee ne ñoom la suñu borom subhanahu wa taala wàccee nattu seeni kaw dañu koy tàbbalee xaritoo yi di mag am ndaw góor ak jigéen yaa xam fa nga nekk dañuy ñaan yàlla rek fëgg sa bopp nga mën a dellu say njaboot waaye gu yaram mën a tàbbi sa yaram waaye du ñu yi ñi nga xamee ne ñoom la caabi féetee ginnaaw ñu nëbb leen jant bi yaa def am defoo dama koy wax saasu ne sama biir wax kaso jommul kenn man mii di wax yéen ñi may déglu ba si ñi may seetaan dañ leen di ñaan rek yàlla suturaal leen ngeen mën faa jógee nu mu gën a gaawee waaye ñi suñu borom tàggu leen natt boobee ñu mucc ko ku nekk fa nga nekk yaa xam fam la fekk mi mu réew ab bitim réew Xaadim Njaay seen rak seen mag seen jaxbaat seen sët moo leen di nuyu fu nuy gën a sellee di lay wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu li gën a fas yéene kaay yi bokkoon na si boobu lee di wuyoo si turu Assane Diouf Assane Diouf nag nekkoon fële sa États-Unis ginnaaw bi nga xamee ne sax dañ ko gënoon ràññee si ab saagakat di saaga képp koo xamee ne autorité nga fii si réew mi mu amal ak yow problème wala sax kilifa diine yi ñenn ñi asan Diouf daan génn di am ay kàddu yu ñaaw yu mu doon génnee si gémminam di ko jëmale si ñoom moom nag ginnaaw loolee nañ ko fii si réewu Sénégal waaye dafa mel ne tey rek la gën a wax ndax démb rek di fële sa plateau Walfadjri suñuy naataangoo moom Assane Diouf ñu koy laaj si affaire maître El Hadj Diouf mu mel ne andi na sax si mbirum yamba ndax li mu wax mooy yamba bis bu amee doole moom Assane Diouf fii si réew mi la koy autorisé ndax jàpp na ne yamba dafay faj bokk na si sax lu tax mi ne moom fële sa États-Unis ab laboratoire lañ fa créé yu si ëpp yoo xamee ne ñoom dañuy jël ab yamba di ko traité ngir génne si ay médicaments yoo xamee ne day faj ñenn si ndaw ñu nekk foofu foofule moom nag Assane Diouf sax dafa dem ba di wax loolee yenn sax sénégalais yi génn di koy ñaawlu ndax wax joojee jàpp nañu ne du ab wax bu rafet si tele rawatina ndaw ñi di la bàyyi xel di la déglu suñu wax nag du si sori dañ leen di bàyyi moom Assane Diouf si jëmu boppam Mbappé daal bëse ko sonal ñun sax dañoo sonal. waaw <laughs> doo ko jaxasee ak moom finalement. Marc Serigne Fallou Mbappé <laughs> li may wax <laughs> mm. man du ma fen. xam léegi koo xamante ni yow boo wàccee sa saal man li may wax ni dama ko fekkee. xool même bu fekkee dafa maa dëkkal. nga nekk ci kër gi di fa tox yàmba ak di utiliser drogue. non man moom man moom. loolu la wax uh-huh. damay fàttali rek. waaw moom moom muy nangu loolu pour sénégalais yëpp xam. moom mu koy nangu waxal déglu ko. pour sénégalais yëpp xam kan mooy. Assane Diouf maa ngi koy commencé ci sama xalifa général man. sama toxum yàmba nëbb mu. kenn ci àdduna amoo garantie. mais loolu yow yow indiwuñu sax. non non non non non dafa naan parce que parce que dañu nekk ci monde boo xamante ni dafa évoluer. non may ma non may ma may ma may ma parce que man dëgg. non non non non non non mais question question la. question grand bu ñu dem affaire sénégalais grand yow européen nga. xam nga li tax may wax loolu xam nga. xam nga mais damay damay leeralal rek parce que. parce que dama bëgg dama bëgg dama bëgg sama copain bii mm-hmm. am victoire. Mm-hmm. te victoire bi mooy toujours foo mën a toog rek ne waa ji lu mënti am tam wax na dëgg. dëgg mm-hmm. voilà te àdduna bi dafa dafa jaxasoo fi mu toll nii. man Amérique laa nekkoon. mbedd ma ma nekkoon quarant septième boo demee fi mu toll nii ah building bu ëpp. wal fajiri moo fa nekk boo xamante ni bépp xeetu yàmbaa buy sax ci àdduna ñu ngi ko fay jaay muy faj ay doomu aadama déglu leen ko déglu leen ko baax xam nga foofu rek laa yem te hmm. bis bu ma yàlla dimbalee ba ma am pouvoir fii biir Sénégal hmm. ah dinaa fexe ba ñu légaliser ko garantie ah bon hmm. que lu tax parce que lu tax lu tax dafa am ay xale yoo xamante ni dañoo juddoo Denver Colorado am feebar feebaru comme xale yi ñuy wax nunu xaw ma nañ ma jéggal ci tur bi mm-hmm. ay seex yoo xamante ni ay mag rakk lañ sax ñoom ñoo am denva tool bu la neexee nga gugul ko ñoom rek ñoo am autorisation saxal yàmba xoolal li tax ñu am autorisation bi ñoom ñoo def seeni recherche recherche recherche ba génn ci ay médicament yoo xamante ni xale yooyu nga xam ne dañoo waroon a génn àdduna war a waraltu ñoo woon wax wala ñuy continuer di kii ñu ngi jàngi ñu ngi dox seen soxla te bu ma mënee am boobu médicament nga xam ne ñax la boo xamante ni yàlla moo ko saxal ci suuf du cigarette cigarette tubaab yee ko defar pour rey nit ñu ñuul ñi mhm. bii nag yàllaa ko saxal ci suuf pour doomu aadama yi ñu ciy faj ay junni junni doomu aadama États-Unis France Angleterre Allemagne mais Assane faj boobu nag dañ koy defaral sous forme de médicament ba mu baax ko defar mu ne mu ne ma ne yàmbaa boobu doonul ne yàmbaa brut bi ngay jël tox ko ba ba ba ba ne amul kenn noo ne ne boobu mooy faj xoolal liñ ciy dindi moo gën a garaaw sax brut liñ ciy dindi ah lépp ah moo gën a garaaw sax brut parce que naa am débat bu intéressant la xoolal mënoon naa am keeg yi. Mhm. gâteau yi ñuy defaran ah. mhm. fekk la fii jox la ko nga lekk ko. xoolal am lu mu la dimbalee. je sais mais léegi dañ ko def ci dañ koy ba mu xam nga daf leen arrangé yéen ci benn côté am na lu bari looy diw sa yaram bi ci yàmba la jóge muy diw yàmba sax voilà am na diw yàmba léegi nag ci loolu nga utilise ko comprendre nga li ma la ba pare tam dëmm ñeneen ñi utiliser leneen. man grand yi sax defaroon naa ko ci diw. waaye man la man la waxuma la man kay xoolal. mais mais bu ma joxoon tool bu hectares. parce que dimbali Sénégal dimbali ñu yaram xam nga ba pare défendre sama jeunesse bi nga xamante ni chaque jour ñu leen fii yamba dof la wu fi kenn yow jeune bi tox yamba yow laay waxal. Ah. bu fekkee yàlla dimbali na la xam nga mënoo koo bàyyi bàyyil cigarette bàyyil nicotine bi nga koy booleel loolu laa lay digal. bu loolu weesoo bu kenn tux yàmba. voilà ah, non non dafa génn te dafa nekkoon ci liñ ko ne dalal naa la ci kër dundal la. ci loolu lañ nekkoon non parce que. waaw ba tey dañuy desandi activiste boobule di wuyoo si turu Assane Diouf ginnaaw loolee nag suñu naataangoo yooyu fële sa Walfadjri te ñu dalaloon ko nag laaj nañ ko si digganteem ak ki nga xam ne mooy Kouramaki Kouramaki nag ku ko xamul dégg nga ko moom nag ab défendeur la ki nga xam ne mooy président Macky Sall képp ku ko laal suba si rek jàpp ne ngoon si moom Koura nag dana génn tontu la fu tontu gën a ñaawee moom nag la ñu laajoon Assane Diouf lan mooy digganteem ak ki nga xam ne mooy Kouramaki ginnaaw bi nga xamee ne nag Koura def na ab sortie di jël ay kàddu yu gën a ñaaw teg ko si Assane Diouf leer la dañ leen di bàyyi rek ngeen seetaan ko te ñu ñëwaat léegi seen site leader. man sénégalais laay waxal man waxaluma sama poos mu doon waxal sama poos kon heure bi maa ngi ci maa ngi ci. Mercedes lu nga bëgg ma fàttali la li mu wax. non soxlawu ko. soxlawu ko parce que xam nga lu tax soxlawu ko man Assane Diouf dafa am ay millions yi sénégalais yu mooy déglu bis bu ne. am ay millions yi sénégalais yoo xam ne soit feu rouge wala garage boobu ba tey rek benn waay bu ñuy wax El Hadj Guèye daf ma fekk garage parce que damay tooñ sama jarbaat Iboulaye chaque jour di ko wax ne ko xam nga patron boo xam ne du fay liggéeykatam parce que entreprise la ñu yor waa ji tey mu ñëw ba garage xam maa ngi koy nuyu El Hadj la jóge ñëw fekk ma may liggéey sama oto di liggéey mu ne ma chaque jour damay dégg yenn saa ngay kaas ci ibulaay di wax daal ne ma mais tey boo liggéeyee ba wàcc man maa lay fay. sama oto laa doon defar pare mu wax ba soon ma ne ko dee mu génne vingt cinq mille francs jox ma ko ma séddale ko booy genre nit yu mel noonu ah man ñooñu laay waxal man waxuma pour sama poos waxuma pour ku ma dimbali waxuma pour bu pam Ndiaye waxee ci lu sénégalais yëpp di jàmbat am ku ko yónnee wala ku ñu yónnee mu ñëw di ko attaqué njëkkewul ci man jaar na ci yow jaar na ci Ousmane jaar na ci keneen jaar na ci keneen ba bërki démb rek def na loo xamante ni du ma tudd turam mais dama koy digal en tant que sénégalais gis nga diine dafa foor fii senegal mais nga dem ba toog di wax koo xamante ni dafa am ay taalibe formé leen ñu am formation bu xarañ sax muy MC Baye nga toog bay wax ba di ko xam nga di ko wax yenn wax yi mooy yaa ngi xaru di ko ñaan na moytu parce que alal jalu ko. kan moytu kan ngay wax mu moytu. moom ndaw soosu. ok doo wax turam. waaw duma wax turam parce que li tax duma wax turam mooy ragaluma ko mais ci biir waxam ji nga bëgg expliquer moom moo wax ba delluwaat ci fin wu wax ji mu ne moom sax da doon yor otoom di wër ci festival yi di liggéey. di am xaalis dégg ko ci audio bi kon kooku setal na ma loolu la ma yàlla dimbali te commencement bi dafa wax ne xam nga benn kii la wax wax ju ñaaw mais yéen ñaa fa la xamante xoolal pour respecter sax soxna soosu mhm. borom këram bi mu njëkkoon a nekkal laa jox cër rakku mbay gay fay la muy jibi jóob fay te sama waay la mhm. ñoo màggandoo Medina dafa am ak moom ay doom bugguma yenn kàddu yi Mm-hmm. di génn ci sama diggante ak njabootam on mais du question la dama ko ragal wala dara mais nag dafa am lu ko naqari loo xam ne dama koy leeral dafa bokk ci benn groupe am sama benn baay fal bu ko jëlee ci groupe boobu xam nga dugal ko ci whatsapp bi pour mu wax ak man loolu am na deux ans ma ne allo mu présenter wu ma ne ko kookal la mu ne man la diw ma ne ko soxna si mu ne ah, ma ne ko man ak Ousmane Tunkara ñoo bokk ndey ak baay ci lépp raccroché ko comprendre nga li ma la wax. Mhm. man bu may xeexal pam Ndiaye damay xeex ba xeex bi jeex. Mhm. du ma dellu ginnaaw jamais. Mhm. te dafa yàq deru sama frère Ousmane. wax ay wax yu bon ci moom xam nga bëgg wëlbatiku ñëw wax ak man duma ko nangu du ma façon nit boobu. donc kuramaki moom moo wax loolu. wala comprendre nga li ma la ah, ki ngay wax ne moom moo ko kuramaki. waaw xam nga wax ju bon jooju mu wax. yàlla na ko ci yàlla dimbali moom man yàlla def na Amérique. bi ma fay dem dama am métier. moo fay dem samay rakk a ngi fi Aziz Ndiaye mi ngi fi Thiam Teranga mi ngi fi ñooñu ñëpp sama rakk lañ maa leen tette. bi may ñëw sama rakk maam Cheikh bi nga xamante ni moom laa jëloon passeport am tukkee ko dem Amérique mi ngi fi. yaxi déglu ma la moom ci boppam man maa ko jëlee fi mu doon liggéey ne ko non lii du sa liggéey kaay def lii yóbbu ay jeunes yu bari ci taliba. jeunes yu bari fii tey yu yor ay societé ñii di jaay ay oto xam nga ñii di xam nga di tëgg ay làmb samay rakk lañu mm-hmm. ak lu ñu mënti yor sama yoon nekku ci mm-hmm. samay rakk lañu yaa dégg li ma la mm-hmm. parce que dafa am fu ma jaar ak ñoom te mu wóor ma ne man mën nga toog ay jamono bi tey buggul woon toog ak Assane Diouf du kenn fii parce que li ngay dégg ci Assane Diouf. doo bëgg sax mu jege yàgg bëgg man. voilà pour te ba ma la déggee nga. commencé parce que tooñkat nga te da bëgg chaque jour ku lay xorom te du ma la xorom. yow yow moom ak say xorom. c'est-à-dire doon am aadi nga toog xorom ma ma xorom la. waaw jeex na mooy li ma xorom naa. mu jëm mu jëm mu jëm bu ma ñëwaat kàpp ah, <laughs> dégg. Euh. xam nga léegi bu ñu demee àdduna di dox di dox di dox di dox ba moom muy toog di wax wax yu bon muy ñëw ci man jéggal naa ko parce que séquma ko ak moom te Ousmane moom mu daloon ci kawam xam nga ba coow li indi ko bu moomu si fii kooku sama frère la jabaram bi muy toog di ko saaga chaque jour wallahi barke wal fajiri xam nga fii mooy kaamilu télé barke wal fajiri barke Sidi Lamine Niass. Mhm. billaahi wallaahi wa taalaahi ndaw moo gën fukki junne soxna soosu garantie li may wax ni xol laa koy waxee. Mhm. parce que jigéen la boo xamante ni julli la xam jaamu yàlla toppatoo njabootam te du léegi ah du sëy ak Ousmane. Mhm. ci famille bi mu bokk la. frère day liggéeyandoo ak yéen El Hadj Ndaw bi yor rajo bi. comprendre nga li ma la mhm. nit ku baax la mais bëgg buzz wala bëgg nit ñi di la xool wala ngay wut yenn affaires yi wala ay nit yu nekk ci nguur di la jox xaalis ngay tilimal say nawle yoo bokkal Sénégal man loolu dugalu woon ma ci xeex bi moo tax déggatoo ma ci Facebook bi parce que léegi gars yi diw wax na ma lii Pam Ndiaye lu tax ngay wax ci Ousmane Sonko xam nga Pam Matar lu tax mu naan estade bi nangam lépp laay suivre. Mhm. pamadaat Sénégal la kii Sénégal la man Sénégal laa ku nekk da nga war a wax li intéressé Sénégal te ñu bàyyi guerre personnelle bi pour wut bës du Assane Diouf dafa am lu ma fa dugaloon moo tax xoolal ñoom ñëpp samay taalibe lañ ñoom ñëpp nag tout le monde ñiy xeex fii ñëpp di rey làmmiñ di ngand ngandalu avant Assane Diouf di taxaw di yëkkati làmmiñam daaw ci dégg kenn yaa ngi dégg ñoom ñëpp samay surga lañ ñan ak la tout le monde tout le monde. Ah. ba ci Ousmane Sonko mais am na ñu lay reproché Assane Diouf. Barthélemy sama surga la. Bougane Gueye sama samay rakk lañu. Ah am na ñu lay reproché say rakk say surga lañu. dëgg la comprendre nga li ma la mhm. ñu ñëpp samay rakk lañu xolal deret bi daw fii di bax xolal moo sotteeku ci ñoom te jeexagul day gën a bax parce que xoolal population bu Sénégal xam ñu li Assane Diouf di xeex. leen ci naqari woon mooy xool Assane doo dégg mukk ku ne waa ji day fen ah. non gaan bi ak a mën a fen xorom si rek lañ doon wax wàññil xorom si gaan wàññi saaga yi <laughs> bokkoon na si li gën a fës yéenekaay yi mbokk internetu Desport Media point com Desport TV xanaa di leen wax rek ngeen wéyandi di topp suñuy programme bu leen fàtte mukk di abonné waaye it laal leen kolos bi si kaw mooy waral bépp notification ngeen mun koo jot saa su génnee rek seen site leader di leen joxaat di daje du yàgg dara si kanam tuuti incha allah jërë